mais gëj la gis depuis koor ga. Ah, depuis koor ga kay. gëj gis kay. naka yëngu. bu def émission xaaral ba faram pare ngeen dama lay nuyu rek. baa lay mais mais am na loo xam ne dam Sénégal dañ koy wax. ma ciy jot. muy ay yóbbante. maanaam kani Modou Lo. exemple bi muy joxe. à l'image de parcelle. par ak ay rakkam. ci maanaam boot bi xeeboo ci kenn ku ci xewle lu mu xat-xat nga ñëw yëkkati sa alal yëkkati sa doole taxawu leen. mais c'est normal loolu lañ may taxawoo dama koy wax chaque fois saa yu ma amee bis wallahi la azim comme seen bis say doon damay xool seen kanam yeeg seen énergie seen coono yëpp lañ may jox ba tax na man li rek laa mën xam nga bu ñu amee bis ma ñëw taxaw ci lu ma te àdduna noonu la ñëw bokku parcelle di jàppalante noonu la c'est normal. mais Modou humilité bi tamit maanaam wàcce sa bopp bi lan la. maanaam tey buñ buñ dee wax dëgg ci làmb yaay roi des arènes ku diis da ngay dig at naa amul solo ku diis da ngay dig ku diis da ngay dig ah a laale wër laale bu metti nga yóbbu ko ardo yoon ah, ah, ah. mais mu far la daan tey ki ko jël la non Franc da koy daan incha allah loolu amoo ci xel ñaar bu soobee yàlla Franc koy incha allah mais a mer ba bis nga Modou Lo loolu la wa <laughs> nee na gën a mer ba